ñu leen di nuyu téléspectateurs yu Leral TV am mbégte àndaat ak yéen ci il fait le buzz comme ni ñu koy defee en semaine bu jot tey nag ñu andi leen jaaxi saw du ñu wax nag ni moom moo def buzz ci semaine bi gis nañ depuis ñu annoncé euh, disparition am le 4 janvier ba léegi en xelu euh, nit ñi euh, dalul woon parce que jaari yaakaar naa du jaari famille kese jaari national jaari Sénégal gi yëpp la parce que dafay def suñu fierté deux fois meilleur élève du Sénégal c'est pas donné à n'importe qui donc mais là laata ñuy gën a ñëw nag di yaatal ci euh, loolu dinañu leen xamal ci tënk kan mooy jaaxi saw Diary saw ne la 17 euh, septembre 2000 euh, ma nga fekk baax nag ca Malicounda comme ni ma ko waxee ah une élève euh, ponctuelle assidue très sérieuse mu nekk na koo xam ne macha allah xarañ lool ci wàllum jàng bu làkkee nga ni moom la gën a mën bu bindee aussi nga bekk comme ni ñu ko waxee woon ca ndoxteel ba deux fois meilleur élève du Sénégal en 2017 mu nekkoon nag Miss Science ca lycée bu Diourbel jaax na itam ci école bu ñuy wax privé. Kër euh, Madior moom Diary saw nag nekk ndongo boo xam ne nag daal dinay xarañ lool à lage de vingt ans mu bind benn roman daal di koy duppee nag le visage d'un âge loolu nag di wane ni moom euh, Diary saw li nga xam ne ay mbokkam dañ koy wax parce que euh, lecture nekk na loo xam ne depuis mu nekk xale daf ko yàgg bëgg la preuve boo ñëwee fi nga xam ni mooy néegam ay roman ngay gis mu teg ko ci biir néeg bi nekk nag ndongo boo xam ni boo ko gisee rek muy ab élève danga di eh, naw eh, ndax noppi gi nga xam ni eh, moo nekk ci moom waaye bu waxee rek sa xol dafay daal di féex en 2018 2019 mu nekk meilleur élève du euh, Sénégal 2019 nag la daal di dem ca fa nga xam ni mooy ca France ginnaaw nag bi mu amee li nga xam ni mooy bourse euh, d'excellence ngir daal di àggale nag foofu euh, jàngam ca lycée comme ni ñu leen ko waxee Louis le Grand pour àggale li nga xam ne nag mooy ay études am ñu gis nag ci janvier bi nga xam ne nag weer bi nga xam ne ci la ñu nekk le 4 janvier moom Diary Sow nag ñu daal di annoncé li nga xam ne mooy disparition ginnaaw nag bi ko ñi nga xam ne ñooy ay naataangoom ñi mu bokkal école gisuñu ko boobu ba léegi gi nag sénégalais yi àdduna daldi tiit parce que wax naa ko sànq jaari euh, nekk c'est notre jaari donc gis nañ euh, taxawaay bu am solo bi nga xam ni àdduna def nañ ko ci la ñuy wax bi nga xam ne nag daal nañuy xam ne ni jaari saw euh, tegatuñ ko bët kenn gisu ko kenn xamul ci lu mu nekk ñu gis nag waa France daal di amal nag ubbi ab enquête bi ñu yëgee loolu ñu gis nag ñu def foofu ci xam mooy France ay affiche foo tourner seen photo ki nga xam ne mooy jaari saw ñu gis ñëpp jokk booloo ngir rek daal di koy gis gis moom Dialy Sow mu nekk nag une élève brillante comme ni ma ko waxee ci réseaux sociaux yi partout ñuy gis li nga xam ne moom mooy ay photos ñu gis njiitu réew mi Macky Sall aussi mu def am solo ce qui est normal d'ailleurs que maa ngi koy wax sànq nekk na ndaw waaye jot nañ ko recevoir ca fa nga xam ni mooy ca palais te loolu aussi c'est pas donné à n'importe ki kon ni ñu ko waxee ñu gis njiitu réew mi def ci taxawaay bu am solo Serigne Mbaye Thiam mi nga xam ne moom lañ ko daal di euh, parrainel itam boobu ba tey loxum jigul ci euh, mbile mbir moom Dialy Sow nag ñu bi municipalité ñëpp tiitoona te ba léegi sax am na ñoo xam ni euh, seen xel dalul euh, donte daal dinay nag bind ab bataaxal jàppale ko ki nga xam ne mooy euh, parem di Serigne Mbaye Thiam ki nga xam ne mooy jaari saw mu daal di génn wane boppam def vidéo pour wan nit ñi mi ngi dundul parce que laata bataaxal boobu di ñëw gisoon nañ aussi ci réseaux sociaux yi benn photom moom jaari saw daal dina def signe de vie mi ngi si jàmm wane na bopp boppam la ñu gis aussi laataa ñuy euh, xam muy bind boobu bataaxal euh, di ko jagleel ki nga xam ne mooy Serigne Mbaye mu nekk moo fa daal di bàyyi boppam ñu gis consulat bu euh, Paris daal di nag jóg weddi loolu nga xam ne daan nañ koy wax ñëpp jaakaaroon que ni amul ñu gis que ni loolu mbir mi bi mu amee ku nekk yaa ngi joxe sa version peut dafa nekk ci lu ko neex dafay daw lii wala dafay daw laa wax ji bari loolu mais boobu ba tey amuñu ci woon lu leer laataa nag ñuy génn muy génne moom jaari saw boobu bataaxal donte ba léegi nit ñi ñi ngi njort ni moom jaari saw bindul boobu bataaxal mais en tout cas euh, mën nañu euh, wax que ni am na ci ñoo xam ne seen xel dal na wala seen xel dalul mais euh, en tout cas ci réseaux sociaux yi da ngay gis moom jaari saw ñu ci bari ah ñi nañ ci ñi meruñu si ñi comprendre nañ ko parce que li mu xam ne ci boobu bataaxal mooy fu mu nekk moom kenn téyewu ko fu mu dem moo fa bàyyi boppam dafa dem volontairement tew tegoon na ay indice yoo xam ne daf koy daal di wane mais lu mu ci mënti doon moom jaari bu fekkee dafa dem volontairement itam gis nañu famem xam ne moom lañ jaaxle jaari ah, saw ah, ah, mais bu ñu demee gis nañ nañu toogee nga gis tiis la ñu daal di toogee mu nekk seen doom moom jaari saw ñu toog ay fan ci xale bu jigéen am lu dul vingt ans nekk macha allah koo xam ni ni ma ko waxee woon su waxee rek nga bëgg ñu toog ay fan gisuñu ko donc loolu yaakaar naa du famem kese ah du famem rek ñoo tiitoon mais Sénégal àdduna ñëpp jaaxle woon nga gis France 24 yeneen télé ñëpp di jaalale ki nga xam ni mooy euh, Diary Sow te il faut le dire parce que euh, Diary Sow nekk na meilleur élève du Sénégal mais mën nañu wax que ni depuis mu demee Paris euh, jàngi peut-être du ñu wax que ni dañoon na ci xelu sénégalais yi parce que elle fait notre fierté deux fois mais élève du Sénégal mais mën nañ jàpp ni sax laata ñuy wax ci affaire disparition peut-être nag sénégalais yi génne woon nañ ko li nga xam ni mooy seen xel donte fàttewuñ ko mais demoon na jàngi donc du coup mën nañu wax ni coow lii moo andiwaat moom jaari saw ñu commencé waat di waxaat ci moom donc mi ngi noonu andi leen ki nga xam ne mooy euh, Diary Sow comme ni ñu ko waxee woon di fàttali nag que ni moom moo nekkoon meilleur élève du Sénégal ci atum 2018 ak 2019 jot na itam benn euh, bind benn roman à l'âge de vingt ans muy le visage de nage donc euh, loolu di wane que ni rek moom Diary suñu fierté la comme ni ñu ko waxee di wax ni rek li nga xam ni moom la nit ñi di sàkku jamono ji ci moom mooy mu daal di génn def vidéo buy wane que ni euh, mi ngi dund te ay qui est normal d'ailleurs parce que dafay wane rek ni jaar yi mi ngi ci xolu euh, sénégalais yi te suñu jaaxi la aussi donc ñu leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a taamu leexal TV rawatina il fait le buzz semaine bu jot ngeen koy xaax ñu leen di jox dig daje semaine prochaine incha allah ci beneen numéro il fait le buzz ak keneen ku def buzz.